nga la gaynde warul moom du ragal ramba maraaj moo di buuru àll la fekk dalay daar loolu la ñëpp waa la fayda moo amee fu la fayda kenn du la yee fu la fayda moo amee fu la fayda kenn du la yee fulla fayda o amen fulla fayda keno jola ye Girl, let the way come, come, come hard Girl, you ain't about to come, come back a yard Let the way come, come, come hard Girl, you ain't about to come, come back a yard Ma ki se tu ve kër Le nyo di Senegal Le nyo de la teranga Maro di jayi gayde Jaloore won na ki blew هذا اللي جنونه يا شبابي عمر قيساس أمانة جنون ولا نخون يا خليقة إلا جيجو ونبتو ولا تجديد يقلب بلون في دم لما تاني مرة لا الخبر تغلل ولا المنور سولو يا نارك فاستف en tant qu'attaché de cabinet ministre des sports pour représenter suñu grand frère Cheikh Amadou Bamba mi nga xamante ne ligue bi moo ko jël moom ak frère am Issa Ndour mu def leen parrain finale petite catégorie. loolu nag dañ koy rafetlu parce que Bamba Sarr depuis que ñu nommé ko daal gis nañ mu ngi jàppale sport bi. muy basket bi muy football bi muy handball bi ak bépp doomu Fatick boo xam ne yaa ngi organiser dara Bamba Sarr dugal na ci loxoom. ñuy ñaan bépp doomu Fatick boo xamante ne président denc na la ndombo tànk nga def nii Bamba Sarr di def mooy jàppale population bi bu la soxla mais waroo xaar ba élection ñëw rek ngay jàppale population beneen bi mooy infrastructure yi gis ngeen ne stade bi mu ngi am deuxième turbine te xam naa ne balaa ñoo inauguré deuxième turbine bi projecteur yi ak gazon bi dina ñëw donc loolu lu am solo la parce que Fatick am na ay club ba Kaarang ba Diofior le foot ne se au niveau de la commune de Fatick seulement mais dans l' espace régional loolu wane na ne

ñun comme ay sportif lañ ay porteur de voix lañ stade bu ñu dem mbala plateau bu ñu dem ñu jéem a fexe sensibiliser nit yi ñuy porter masque yi di respecter les mesures barrières yaakaar naa ne bu ñu ko defee ak lef effort yi nga xamante ne président de la république mu ngi koy def beaucoup de pays africains amuñ ay vaccin mais ñun am nañ Sinopharm am nañ AstraZeneca am nañ Johnson and Johnson bi nga xamante ne ñëw na barki démb ñu lancé ko te prise unique la buñ continuer si loolu au niveau local li ñuy def au niveau national ñu def ko yaakaar naa ne mun nañ aboutir ba mbas mi jóge fi maintenant nag na ñëpp xam ne mbas mi du Sénégal kese mais adduna bi yëpp la économie bi yëpp gis ngeen ne Jeux olympiques yi commencé na Tokyo mais stade yi huis clos la cela veut dire tout simplement que public bi yore woon sport nekkatuñ fa gis ngeen ne combat bi ñëw muy Balla Gaye ak euh, Bombardier huis clos Parcelles lay nekk cela veut dire tout simplement que sportif yi bëggoon seetaan duñ mënati seetaan lépp ndax mbas mi pour xeex mbas mi nag respect mesure barrière la ak dem ci poste de santé yi vacciné wu gratuitement yaakaar naa ne loolu la am solo te Bamba Sarr aussi message boobu la kii yónnee ay magam yónnee ay rakam yónnee ay xaritam ay amis d'enfance am moom képp ku ko woo si développement Fatick dala siy jiitu parce que liñ ko jox joxuñ ko ko pour ses beaux mais dañ ko jox pour mu jàppale doomu Fatick yi te yaakaar naa ne képp ku am ndombo tànk da ko war a imiter di gërëm la Ligue régionale de Fatick si organisation bi di rafetlu présence directeur technique national xam ne petite catégorie moo yor sport Sénégal ñuy ñaan club fatickois yëpp ñu petite catégorie bi yóbbu leen catégorie senior pour Fatick mun am benn équipe bu nekk Ligue 1 merci beaucoup. Ben, je voudrais d'abord saluer donc euh, toute la population de Fatick et également aussi euh, remercier mon ami euh, Mam Adamandour de m'avoir invité donc euh, pour assister à cette finale de petite catégorie parce qu'en fait c'est ça qui m'intéresse le plus les cadets et les juniors les minimes et les benjamins et j'avoue que c'est avec plaisir que je suis arrivé tout à l'heure Et j'ai déjà assisté donc à la finale des cadets. Et là, donc, on est à la finale des, Et comme vous l'avez dit, que la Fédération sénégalaise de football a une bonne politique sportive en matière de petite catégorie. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les résultats qu'on a obtenus, n'est-ce pas, dans ces différentes compétitions, que ce soit la Cannes ou la Coupe du Monde, montrent effectivement que nous avons une bonne politique sportive au niveau de la petite catégorie. c'est au niveau des compétitions des jeunes, au niveau des régions. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un manque, parce qu'il y a un problème de moyens qui se pose. Et je pense qu'aujourd'hui, la fédération essaie donc d'aider un peu les ligues à organiser ces compétitions-là. Mais en plus de ça également aussi, nous avons les projets Forward qui nous aident effectivement à organiser donc, des compétitions au niveau donc, de, des régions. Et aujourd'hui, euh, on avait un projet euh, qui devait démarrer en principe depuis le mois de, de mars, avec la compétition des U17, des U19, des U20, des U15. Mais malheureusement, le financement a été retardé, mais on vient juste de recevoir le financement. Et c'est pourquoi on a décalé jusqu'à l'année prochaine, parce qu'en fait, le temps était trop court. Euh, di sant euh, sunu doyen yi ñëw fii mu ngi doyen Baye Diouf xam ne moo président Ligue Fatick xam ne boobu ba léegi aussi mu ngi ci football bi lu ñu xewlee mu teew du nuyu directeur technique national nga xam ne ne wax dëgg yàlla tey bàyyi na yitteem ñëw Fatick pour xool final yi cadets junior yi. loolu day wane rek ne mu ngi def rôle am si football bi parce que aussi en réalité kon directeur de tournée nationale da ngay wàcc ci terrain bi xool manquement yi nga xool noo koy di remercier parrains yi tey parce que tey boo xoolee tey mooy fin saison bi fin saison 2020 2021 semaine passée joué nañ final senior yi bii ba ñu ngi joué suñu football cadets yeeg junior yi. loolu moo lay wane ne euh, ñu ngi euh, sant euh, ligue bi mooy membre consultatif yëpp ak président club yi nekk ci ligue bi ak organisateurs affinitaires yi. di leen remercier seen taxawaay ci football Fatick waaw ñu ngi am mbégte ñëw fii nii tey teewal fi monsieur le maire Matar Ba mais ci invitation monsieur Bamba Sarr moom mi nga xam ne mooy parrain bi di profité ci occasion bi di remercier di féliciter ligue régional bu football moom mi nga xam ne moo organisé final yi mais di féliciter bu baax monsieur Bamba mu doon doomu Fatick waaye mosta tàyyi ci wuyu ci Fatick su soxla donc muy ci sport bi muy ci yeneen domaine ak lu ci munti doon saa bu Fatick soxla Bamba taxaw na pour accompagner les populations. flag rider, oh I'm a flag rider, hello to the yeah. fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee maa ngi seeti jëkkër la ñoo di Sénégal la ñoo dala teranga maroo di jaay gaynde sa jaloore woon na kim réew dalli jagalu yoo jemet bi Omar Gueye Seck amaana ci ñooñu lañu xool ñoo Fadiga El Hadji Diouf lépp lu leen teg di jugal lépp lu